gàmmu oustaz Iran Ndaw gi muy def ci esplanade des Thiessois ñu fekk fi Thiessois bu mag a mag bi waaye it di borom xam-xam ñëpp miin ko ci écran yi fële ci seen TV ci jotaayu xam-xam macha muy jàmbaar lool yaakaar naa moom macha su ma ko bañ a catu dama naan ci kër xam-xam la juddoo macha allah ñëpp miin ko muy Ousmane ñu ngi lay ziara mbay. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di am mbégte macha allahu taala waxaat ci site bu mag bii nga xam ne mooy Talibe TV yaakaar naa ne bokk naa bi muy juddu ci nga xam ni ñoom lañ ci njëkk a dalal macha allahu taala di ñaan yàlla yàlla gën ko may doole bu baax a baax ba ñu dégg ko ci àdduna bi yëpp ñu am mbégte bu baax a baax teew fii waaye nuyu la ziar la. lan la mën a jàpp tey ci teewaay bi. waaw tey moom bis la boo xam ne macha allah du ma ni du ëpp na Ibrahima Janam bi ñuy gis ndaxte liggéey na ci diine loo xam ni tey jot na jot na sëkk ñëpp delloo ko njukkal ñëpp delloo ko njukkal ndax musul noppalu lu mu am jox na ko diine xam nga yàlla dañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Cheikh wooye ko ca diiwaan ba xuyirta faxtar te diinallaahi moom lool la def yàlla dalaa tànn loo yow Seydina Muhammad nga tànn diine yàlla bi moom dafa judd rek tànn diine islaam dafa judd rek tànn Tiwaawoon dafa judd rek tànn tari tarixa tijaan jeex ci tàkk moo tax macha allah bisam bi bisu umma islamique bi yëpp la. macha allah yan relation ngeen am yaa ngi waa ibrahim Ibrahima Badiane. ndax gis bi nga ñëwee da ngeen mu accolade la jóg macha allah. <laughs> waaw moom yàlla dafa dogal sama sama papa la sama xarit la sama sëriñ la yàlla dogal ñu bokk di liggéeyandoo fecc seen TV. mu bokk ci ñi nga xam ni dama ko daan estimer ndax taxawaayam ci diine xam nga man lenn lay nawee diine nit mooy su ma gisee sa base charia dëgër ma teel a te moom macha allahu taala basam ci sariya ñëpp nangu nañ ñi dafa dëgër këñ parce que diine rek lay wax te leblewu ci fayu ci xoolul lu neex nit xoolu lu na naqari nit moo tax ñu jàpp ko ci loolu fonk ko ci lool ba pare yàlla dogal ñu bokk tuyaawoon bokk li ñuy jokk man ak moom muy kër Seydil Hadji Malick mu doon mbégte ci ñun macha allahu taala ma koy déglu nag di ko di ko ndamoo fa tabarakallahu danaan ma sa papa sa papa Cheikh Tidiane Mbaye bi ma koy seetaan kër jëmb jamono yi yàgg macha allahu taala di sama wole baay moo tax relation la boo xam ne macha allah dama ko jàppee sama kilifa jàppee ko sama sëriñ jàppee ko sama xarit macha allahu taala. macha allah porteur de xam-xam kilifa yu mel ne yéen bu ñu dajee ngeen du ñàkk ñu di laaj taxawaayu réew mi ak jaaxle gi nga xam ni ñu bare jaaxle nañ ko ci lan mooy nekk message waaw réew mi moom fi mu nekk ñëpp a tiit ñëpp tiit parce que li tax nit ñi tiit mooy dafa am benn benn benn pion boo xam ni pion yu la pion boobu pion la ci pion iblis yi muy al fitna du fitna gis nga dee li muy garaaw garaaw garaaw fitna ko ëpp doole bakkan li muy garaaw garaaw garaaw fitna ko ëpp doole ndax yàlla dani al fitnatu ashaddu min al qatli fitna moo jur moo jur dee fitna bu juddul bakkan du tuuru te réewum Sénégal suñu réew la problème bi lépp nag dañ koy wax ñaari nit ñaari nit kese la ñaari nit kese ñoo la réew mi dañoo mën a tax réew bi nekk ci jàmm muy son excellence président Macky sàll ñaareel bi Ousmane Sonko ñoom ñaar rek la lëmbe fi mu nekk kenn ku ci nekk nag il faut nga am loo bàyyi ngir réew mi waroo topp sa intere bopp mais da ngay topp intere réew mi parce que Ablaye Wade fayu leen lii ab Ablaye Wade jiwul Macky Sall lii du Diouf jiwul ab Ablaye Wade lii kon Macky Sall waruñoo jiw lii président Ousmane Sonko tamit na xam ne comme leader la ñu ko yaakaar dañoo bëri na fexe respecter justice su réew mi. Parce que la justice est un principe philosophique, juridique et moral, fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit de la morale. loolu la ñu wax justice nag da koy respecté wala ñu sanctionné la ñun on est marre dañu fatigué kenn mënatul liggéey kenn mënatul génn kenn amatul sécurité ñaata bakkan ñoo tuuru ci procès bi kenn xamul nu mu tool ay doomu jàmbur lañu ah dañuy xëy xëy leen mu jeex. ñu an seeni doom ana doomu président Macky Sall ana doomu Ousmane Sonko fan la ñu nekk kenn xamu ko leen mettre dans les conditions bu baax lañ leen di mettre ñoom ñëpp ñun suñuy doom ñooy deewi ci biti en tout cas li ma ciy lancé mooy jàmm ji daal maa ngi woo président Macky Sall. mu indi jàmm ci réew mi président Ousmane Sonko na dem wuy ji procès biñ ko woo parce que loolu mooy dëgg réew boo fa tënkoo da ngay fekk constitution réew ma nga appliqué ko parce que mënoo ni citoyen la ba pare buñ la wooyee doo dem boo lëggee boo toogee kon yow mënoo wax leen lu kenn jëfee c' est ça la vérité nañ ko appliquer loolu moo ci sama gis-gis en tant que citoyen ñu fexe réew mi nekk ci jàmm te bu ñu def attention nag élection 2024 balaa moo àgg duñ ko tal maa la ko wax situation bi réew mi toll boo moytuwul élection 2024 dinañ tal leneen lu dul élection. nañ préserver waat bakkan yi macha allah loolu laa ci wax di profito rek di woote waat jàmm ci ñëpp nag te képp ku mën a wax sëriñ bi na nga wax. wallahi keroog damay dama taal sama oto war a dem seen TV tourner émission. mais bi ma xoolee situation réew mi dama obligé dama obligé taxaw dama obligé taxaw bàyyi ba fajar ma raam sama ordon ndànk dem tellement que procès bi day dem ba yow sa jëm bopp am na benn bis bi ñuy sànni lacrymogène yeeg moyen cinq ñu toj sama oto moyen cinq ñu toj sama oto fu na ngay dévier fu na ngay jaar réewum Sénégal nag macha allahu taala war nañ ko xoolaat sëriñ bi ah. jërëjëf

yonent dafa diis foofu loo ma xale ba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

413 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax